suñu mbokk internet yi ñun waa Tacko TV ñoo ñëw tey teewal leen fii ci plage bi nga xamante ni mooy mali bu ku ne xam na ne nag été la ñu nekk te noyade yi bëri na lu nekk bëri nit yi ñi ngi ñëw si plage yi jaaykat yi yëpp a ngi ci plage bi woon tey nag ñun waa Tacko TV pour wan li nga xamante ne ni moo xew fii nga xamante ni mooy ci plage bi. asalaamaaleykum sëñ bi nuyu naa la. Eh, maa ngi lay fay soxna si. sëñ bi mënoon naa xam tur bi. waaw Garmi la baayu Babacar. Garmi Garmi ñu ñëw tey fekk la ci fii li nga xamante ni mooy plage Malibu ma bëggoon xam lan moo fi waral teewaay bi. waaw ñëw rek pour changer air jël air tuuti ñëw xool ba xam soppeeku dëkk bi nu mel ak yooyu noonu moom fi indi daal. waa Garmi ñu gis ni fan yi dëkk bi jax na torop ci lan muy noyaat xay xale yu ndaw ci ñàkk seen bakkan parents yi di si ñàkk seen i doom ma bëggoon a xam yow lan nga ci xalaat ak tey ji ba doon jox conseil ñi nga xam te ne yi wala xale yi dugg ci ndox mi lan nga leen di wax. waaw man li ma mën a wax parents yi bëriwul comme li may wax rek en tant que frère rek frère man foofu lay waxee mais parent yi li war ñu ngi koy def parce que tey ji xale yi am nañ benn habitude boo xam te ne bu ñuy génn duñ tàggoo tamit parents yi mënuñoo xam fu xale yi dem ñoom ñi nga xamante ne ñooy dem pour ñëw géej njort naa ne ku ci génn war ngaa mën a wax sa yaay fii laa jëm pour bu lay wëri war laa mën a wari jee foofu mais sa doom day génn suba ba ngoon jot nga koy a tegaat bët mënoo ci dara. parce que jamono ñu toll nii xale yi seen magum bopp lañ mais d'après li ma leen mën a wax ci géej gi mooy ku ci nekk nga xam fi nga xamante ni fa nga mën a yem nga yem fa. fi nga mën a yem nga yem fa te tamit en plus solution leen la booy di dugg ci géej gi nii ñoom xamuñu fi géej gi yem de ñoom nañuy topp neexaay bi rek di dem mais war nañ fee teg ay nageur pour muy limiter xale yi que plage yu bëri boo demee da nga fay fekk nageur boo xam ne xale bu demee ba foo xam du yoon dañ koy woo mu tourné waat. kon war naa mën a am fii parce que xale yi fii lañ am ñoom amuñu moyen bu ñuy génnee di dem Dakar ay piscine olympique di sangu jeeg yooyu noonu quant à ñun mag ñi sax am nañ ko mais ñoom amuñu ko kon war nañ leen mën a limiter ci ndox mi. d'accord jërëjëf Garmi ñu ngi lay jaajëfal. am leen jàmm. asalaamaaleykum. ay salaam. ça va naa la. maa ngi lay fay. sëñ bi nan noo tudd. Moussa Gueye. Moussa Gueye Moussa tey jii mën naa xam nan moo la indi ci plage fii waaw man nga ko xam kay si. lan moo la fi indi. ñëw feexlu rek dox doxantu quoi ànd ak sama gars ñëw toog fii nii géej gi doxantu quoi feexlu mee du ma sangu moom. Moussa nee na moom du sangu Moussa yow lan moo la gën a neex ci plage bi lan lan lan nga fiy gis loo xam te neex na la torop neex sa biir xol. fii nii maanaam dajaloo bi nii ñuy waxtaan ñii di kaf di ree ànd ak gars yi nii ñu boo bëggee fubal fii nga fubal fo yaa ma gën a am entraîné yooyu noonu mais pas sangu bi quoi. sang yi moom bu nga mënoon bàyyi ñu bàyyi wala nga mën a yem ci buntu bi rek quoi mais pas nga dugg si biir quoi gone yi quoi. ñu ma dina vérifier. waaw Moussa foofu laay ñëw ak yow sax parce que gis nañu temps yi xale yi lab bëri na torop si géej gi musa lan ngay dénk sa rakk yooyu sa frère yooyu nga xamante ni ñi ngi lab si géej gi lan ngeen leen di dénk ñi nga ni ñoo fi des sax wax parce que ñi lab moom dee nañ ba pare mais nga xamante ne ni ñoo fi des lan nga leen pour ñu baña def ni seen morom yooyu ba li leen fekk li ci fekk ñooñu di leen si fekk. waaw ah, ñu moytu rek xale yi moom ma na leen moytu wala mag ñi wax ak ñoom quoi comme nii bu ënd ak sa xale nga ñëw taxaw moom si tefas gi nga sangu ko yow après nga génne moom di ko xool quoi pour nga xool nga xool fi nga yem ko fi may yem quoi xam nga bañ muy sangu dugg ba si biir quoi man gone yi bu ñëwee fii nii xam fii nii yem quoi ñoom dañuy dem rek ndox bi moom li mu gën a da yi dem topp si moom géej instant yi wóor dafa am ay kàmba yooyu noonu léegi yow yaa ngi vérifié di leen xool ñoom instant nañ dem bul sore yow nga woo wala nga dem jëli leen ko mënee si. d'accord Moussa si nuyu naa la. soxna si ça tur bi nan la. Ndeye Lo. ndayloo Lo ñu ñëw tay fekk la fii ci plage bi nga xam te ni mooy bu ma bëggoon a xam lan moo fi waral teewaay bi. Euh, <laughs> eh, taxaw taxaw taxaw dañ fay ñëwoon pour soulager kii nii def li ñu neex li ñu saf yooyu noonu ñu xam. ah da fay ñëwoon pour soulager. oui. yow Ndeye nga gis temps yi nii ne xale yu bari ñu ngi lab si géej gi di dee lan ngay dénk seen parent yi ak lan ngay wax xale yooyu. suma benn mag ndeysaan fii la gaañoo dina ma xaw tuuse tuuti mais yàlla baax na fii la la boon ndeysaan ci géej gi géeju Malibu bii nii mais mais yàlla baax na fii la labee woon. d'accord merci de. ok je vois.